Assalamualaikum. salaamaaleykum waa Pikine ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant e, di leen ñaanal kendalu di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm ñun waa Pikine TV tay ñoo ñëw fii ci Pikine tali bu mag seet si fii coxeur yi nga xamante yor bi fi di yeb oto yi ànd ko ak e, transporteurs yi di ànd ak ñoom ci émission nii la ñuy dundee émission nii la tey mi ngi fii ci Pikine tali bu mag seet si coxeur yi nga xamante ni tey ñoom la nu fekk si fii ñu yor liggéey bi jiite ko ku ci mel ni As Mbay ak euh, Souleymane ak gaa yi nga xamante ne ñoo leen fi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci seen émission nii la ñuy dundee fas waxtaan ak ñoom nan la ñuy dundee métier coxeur mi. nan la ko nit ñi di dunde ak ñoom fii ci station tali bu mag asalaamualeykum wa rahmatullah sëñ As ñoo ngi lay ziar ñoo ngi lay nuyu di la jox di la jox sa wàccuwaay euh, yaag ñi nga àndal tey Pikine TV moo leen seet si fii ci station tali bu mag ci seen émission nii la ñuy dundee fas yéenee waxtaan ak yéen ci nan ngeen di dundee. métier coxeur mi nga xamanteni tay ñu bari don ko umpule té lamu saf ka ko match mo ko xam seigne As ñu ngi lay ziar. effectivement alaykum Sénégal alaykum Dakar assalamu alaykum kep ko xamanteni nitu auto nga dila fay nuyo dila delo tamit nuyo bi yak sa effectif bi nga andal di len ziar bu baakha baakha wa lolu boma ma ci laaje dina si contane parce que ñun wax deug fa yalla yag nañ fi et puis tamit ñu ngi ci sante yalla bu baax ñu ngi ci sante yalla pourquoi parce que ñu ngi ci sante yalla neexul ba neexul ñu ngi ci sante yalla wa nit ñi nak ñom kenn ku nekk ak sa gis-gis han ah. kenn ku nekk ak sa gis-gis kër yi sax da ngay yor njabot ni nga bëgg njabot ñepp mel ni duy ni mel yalla mo xam te ñun nit ñun ño xam ñun nit ñun xam nañ suñu bop dal dañuy sant bu baax di gëreum tamit amul benn problème wax deug fa yalla ñun dal ñu ngi sant ñu ngi suñu roq di liggéey di sant yalla di ci dundal suñu jabo di ci dundal suñu bop vraiment nenen ñu kenen xolé tamit wax deug fa yalla dañ lay bayyi rek nga xolé nenen mais ñun xam nañ suñu bopp daal fatuwaar fa ma allah. seigne As eh, kaddu yi rafet na eh, ñu ngi Yen ak yéen ci seen émission nii la ñuy dunde ki leen koy présenté di Mouride Lam bu Pekin TV ñu fekk si fii ci tali bu mag station Serigne As Mbaye ak euh, naatangoom bi ñuy wax Souleymane ngeen dégg as kaddu yi mu ci teg ni mu répété mu des ay yeneen kaddu yoo xamante ni mu ay kaddu nuyoo rek la jiital kon sëñ Souleymane ñoo ngi lay nuyu di la nga wit nga dalal sa bopp xamal askan wi yow yaay kan Assalamualaikum, asalaamaaleykum yéen waa Pikine ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëggee bu baax waaw man maay Souleymane waaw nekk coxeur fii ci ascenseur tali bu wow wow, tudd Souleymane Traoré maa ngi nekk fii coxeur ci ascenseur tali bu wow waaw coxeur mi wow waaw comme ni leen As wow, wax rek macha allah ñun ñu ngi ñu ngi ciy gis suñu bopp ndax ci la yor suñu njaboot ci la yor suñu lépp waaw fii nag lañ dëkk ci dëkk bi waaw surtout maa wow Wow, mais nag bañ a def leneen ndax aw ma leneen lu dul coxé kon coxé rek ndax coxé dañ ci fier ñun ñu ci nekk boo xamul nag xamoo mais nag yàlla suñu borom mu ñuy dimbali ba ñu ngi ciy faj suñu soxla di ci fajaale ñeneen seeni soxla nit day am problème sax ñëw si ñun ñuy coxeur yi ñu daal ko koy fajal waaw macha allah nag xoolal alhamdulilah xëy na nag noonu la ñu yàlla bindee mais amuñu complexe waaw ndax saa su ne ñun dañuy bëggee loolu ndax ci dañu yor suñuy njaboot. ci lañu yor suñuy yaay suñu yor ci ci la yor suñuy lépp ci lañu yor suñuy lépp ci la yor suñuy lépp ba kenn duñu gis duñu yàpp waaw fu ñu dem dañuy jox cër wax ndax nit ki bañ ko yabee rek ci moom la ndax nekk coxeur warul tax nga mën a nekk bandi wala sàcc wala agresseur déedéet waaw coxeur liggéey la rek métier la comme yeneen métier yi ndax Sénégal moo demee noonu ndax Sénégal moo tollu foofu xam nga ñii yàlla da na a dimbali ñuy ambulant ñii yàlla da leen a dimbali ñuy defleneen xëy na ñun nag yàlla dañoo dimbali suñu métier nekk coxé ñuy coxé te ci la ñu yor suñu lépp du duñu sàcc ñu fen te fii ku fi ñëw essencerie tali mag arrêt caaro yëmbal di nga xam ne ñii ñu bëgg seen bopp lañ ñii ñu respecté seen bopp lañ ndax fu ñu génn nit ñi dañuy naw waaw alhamdulilah nag di sant yàlla bu wér waaw du question da ngay coxé rek tax na nga bëgg a fa nekk naan bandi nga wala nii ak nii non du coxeur yëpp ñooy ay bandi te coxeur dafa am ñu ko moom ak ñu ko moomul ñun dañ ay nitu oto yàgg ci oto dugg dem ci oto fu ne dugg fu ne wër senegal partout ñëw toog xëy na nag amuñu oto bu ñu dawal moo tax ñuy coxé mais ñu ngi ciy sant suñu borom ñu ngi ciy yëg suñu borom ñu ngi ciy yëg bu baax alhamdulilah ba kenn yabuñu ba ku ñu gis dañ ñuy naw ku ñu gis dang ñuy naw ndax ni ñu liggéeyee boo ñëwee suñu arrêt amul xëccoo amul def dara da ngay rang boo rangee yab dem sa morom ñëw rang noonu lañ ko organiser kenn du dépassé kenn kenn du jàll kenn sàcc amu fi macha allah loolu yëpp suñu borom mu ngi siy dimbali ndax ñun niñ ko aare waaw kon. waaw sëñ Souleymane euh, kaddu yi rafet na yow tam ah, tey seen émission nii la ñuy dundee. doon waxtaan ak yéen tey yéen waa Coxeur Tali bu mag comme ni ko waxee métier mi métier mu noble la ndax ñi koy liggéey di ko def tey nga xamante ni ci leen yor seen kër ci leen yor seeni soxna ci leen yor seenu njaboot ci leen yor seeni wayjur ci leen teral seen bopp itam kon y a pas de son ñu gis ni tey yéen nan ngeen di dundee métier mi. par rapport ni nga xamanteni fi la Sénégal toll métier coxeur ñepp ni métier mi képp ku ci nekk rek bandi nga wala képp ku ci nekk rek wéyu nga wala képp ku ci nekk ba ñu bari di maytu coxeur bi ndax lan moo tax nan ngeen koy dundé ak askan wi ak client yeen fi fekk si ak euh, li nga xamanteni tay mom ngeen ëmb ba tax ngeen décider jël décision bu toll ni samp seen ngor daan seen doolé te nit ñi xamee wuñ ko ni ngeen ko xamee yéen naka ngeen ko dundee ak ñi nga xam ne amu ci Coxeur confiance. waaw ok loolu dinañ ci sawar ñun tëbuñu tëb doon Coxeur tëbuñu tëb doon Coxeur dañu emprunté wu dem fu ne ci senegal yor tamit sunu permis de conduire ñu tëb doon Coxeur moo tax ñun dañuy assumer nekk Coxeur te dañ ci kontaan trop. ku ñew fekk ñu ci biir métier mi xeeb ñu kooku yow la mais ñun xeebu ñu suñu bop ñi ngi sant xeebu ñu suñu bop ben yoon ñun xam pigin ba muy pigin ba légui ku xam asmbay wala souleyman wala extra extra li nga xam ni bo leen séné ñuy dem lepp luy mat gor bu leen séné ngang parce que musuñu fi def lu ñaaw fu nu neex la ni yëkëti suñu drapeau kenn du ñu waccel parce que musuñu sàcc musuñu agresser musuñu jaayamba kon ñun loolu dañ ciy sant yàlla dañ ciy sant yàlla. waa sëñ As tey euh, yéen ban jafe-jafe ngeen am ci kaw arrêt bi boo xam ni tey tey suñ ko doon seet tey mooy gën a dolli leen naqari si seen liggéey. non ñun fii amuñu fi jafe-jafe amuñu fi lu ñuy naqari parce que fii lépp fa tubaar fa kàlla macha allah ñun ñoo ko liggéeyal suñu bopp ñun ñoo ko géral suñu bopp. ba amul benn ngaañ fi ku neex bu la neexee heure bu la neex mun nga fi ñëw taxaw jël oto ñun ñooy lay sécuriser ba kere ngay génn arrêt bi boo génn arrêt bi nag ñun suñu yoon nekkul si oto buy dem daw di dem yoonam waaw mais fii ak yaa ngi si biir arrêt bi incha allahu rabbi dinañ fexe ba di nga dugg oto di nga dem si jàmm ñibbi si jàmm boo fàttee si biir oto bi dara boo neewee ni oto bi ma duggoon dinay génne birion bi nga xamante ni ci leen bindoon numéro oto yi ni la ah oto sangam de moo fi départ heure sangam donc kon oto boobu la war a doon bu fekkee oto boobu la bu ñëwee dina ko ni ah am na client bu fàtte woon nangam ba léegi léegi nii sax am na benn emprunté bu may déclaré benn saaku boo xamante ni dafa def ay bagage ni benn client moo ko fàtte si biir otoom client boobu bu ñëwee dinaa ko ni oto bii la oto bii nga fàtte woon say bagage te bagage yooyu mi ngi si oto boobu. kon mbokki Sénégal mbokki Pikine. Eh, tey ñu ngi fii ci station tali bu mag ba tey comme ni leen ko waxee ànd waa ak waa Pikine TV ci seen émission nii la ñuy dundee ñëw seet si woon tey coxeur yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci station bi eh, di daan seen doole ci oto yi eh, di wane seen passef ci oto ci kaw tali bi ndax bañ ku leen yab te métier mi nekk métier moo xam ne tey ku ci nekkul ku nekk da ngay foog ni métier mi métier la moo xam ni dafa agressif wala dafa rax bandi wala dafa am leneen loo xamante ni tey tax na ñu baree baree baree bari boo nee coxeur laa rek feneen lañ lay dëkkal wala beneen bët lañ lay xool kon ñii ñu taxawal tey ay coxeur lañ ñu nekk ay nit yu noble ay nit yoo xam ni tey ci la yor seen kër yor ci seen njaboot yor ci seen famille as ah sëñ as Souleymane ñu gis ni tey képp ku ngeen liggéeyal oto bu ngeen yàb ba noppi. daf leen di jox 100 francs wala deux wala nu mu demee noonu nan ngeen di am def ak xaaliss bobu tay. ngeen xamanteni tay auto bu taxaw yàpp ñaata lay nat genn ko tek ko ci loxo coxeur yi tey. waaw fi mom xam nga ni mom fi mom rang la auto bo ñëwee da ngay bindu xam nga bo bindo ñu ne la ci auto bi nga top waaw bindu bi nak waaw macha allah waaw auto yi téeméer lañuy bindo sen premier bindu. seen deuxième bind bu ñu ñëwee trois cent la ñuy bindoo waaw loolu lépp nag xam nga ñun ñoo ko waxtaanee suñu biir ñun ak chauffeur si xam nga pour daale fii defal ndax bu ñu deful loolu rek kon fii kon dafay désordonné wu ndax bu amee xëccoo am pëccëxoo lu ne mën naa xew te lu ne it mën naa xew mën na am xuloo mën na am xeex mën na jamante mën na am lépp ñu ne comme que léegi noonu la demee na leen ko organiser buñ ko organiser daal di koy def rang nga xam ne du am xuloo du am xeex client bu ñëw di nga mën a yéeg si jàmm wàcc si jàmm te kenn du la xëccoo xam nga nit ki saa su ne yow lu la nit ñi di nawee ak lu la nit ñi di respecté yow yaa koy jox sa bopp yow yaa koy may sa bopp ndax nit nit rek la mën a doon du caagee ni aw ma rek damaa war a mën a nekk bandi wala aw ma lu may liggéey rek dama war a mën a nekk sàcc non affaire du foofu affaire du foofu ñun ñun xool ñu ñun dañu ñun ay coxeur la ñu te si te duñu sàcc duñu fenn ci la ñu yor suñu njaboot ku ñu gis respecté ñu daal ñuy naw ndax lan suñu comportement ndax nit comportement ndax dangay bëgg sa bopp boo bëggee sa bopp rek nit bu la gisee rek mun na laa bëgg da ngay fonk nit ñi te nit ñi boo leen fonkee ku la gis mun na laa fonk ndax nit ki amul lu dul boppam waaw ndax nit ki moom bu nu mu bëgg nit ñi jàppee ko ko rek noonu lay doxe kon yéen euh, bu ma déggee seen wax tey est-ce que ma laaj leen benn kàddu euh, métier mi métier moo xamante ni tey euh, tey am na ay responsable yu ci nekk métier la moo xam ni tey am na ay nit yoo xam ni ah ñu ngi ciy gis seen bopp ah est-ce que tey am na ay autorités yoo xamante ni mës na noo ñëw seet si leen fii ci arrêt bi. non fii moom wax dëgg yàlla moom xam nga comme li nga wax rek waaw waaw xam nañu ay autorité yu mag a mag xam nañu ay autorité yu baree bare waaye daanaka fii ñun kenn mësuñoo seet si ñun kenn mësuñoo nemmeeku wala bu njëkkoon bu njëkkoon bu njëkkoon jamonoy commissaire Ablaye Ndiaye moom suñu xaritu patron la woon moom doon na fi ñëw ba di ñu lijjantil benn projet projet boo xam ne dafa baax si ñun mais après bi Ablaye Wade demee boobu la dem mais boobu ba léegi suñu kenn mais nax xam nañu ay autorité waaw léegi tey su leen autorité yi bëggoon a seesi tey lan ngeen di lancé ban appel ngeen di lancé pour tey autorité yi mën a dégg seen wax mën a seetaan seen i image en tant ay coxeur ay jeunes yu nekk fii pikin et pare pour daan seen doole yor seen i carte parce que yéene voté di ay citoyens sénégalais ah tey lan ngeen di wax autorité yi nekk biir Pikine nan lañ lan ngeen leen di wax ci seen xalaat ak seen soxla ak seen soxla yéen. waaw waaw ñu ñëw daal ñuy jàppale rek ak nu ñu mën a jàppale xam ne ñun ay doomu Pikine lañu ñun duñu ñun dëkkuñu Burkina dëkkuñu Côte d'Ivoire dëkkuñu feneen ñun doomu Pikine lañu ñun Pikine la ñuy nooyee ñun lépp lu ñu am Pikine la kon képp ku ñu mën a dimbali ci Pikine rek baax na si ñun ñun dañuy am. Ah, kon ñoo ko déggandoo yéen mbokki taalibe yi nga xamante ni euh, autorités yi nekk Pikine. pour ñu boole yi nga xamanteni tay ño ñoo pigin euh mbam gatt na torop mais ci jurgi la ñi ma taxawal ñom ñoy coxeur yi nga xamanteni ño nek pigin fi ci tali mak station seen émission ni lañuy dundé dundee won si tay doon waxtaan ak ñom ci nan lañuy dundé en tant que ay nit yo xamni tay bëgg nañu dara en tant que ay nit yo xamni tay nar nañu dara en tant que nit yo xamni tay soxla nañ ku leen gungé eh buñ ko déggé ñu ànd ko ak yéen fas yéene ko partagé ak yéen di leen tàllalaat ay loxo di leen toppaat seen ginnaaw di ñaan yàlla suñu borom suñu kàddu fekk leen ci jàmm ngeen dégg leen te ñëw seet si leen fii ci station Pikine tali bu mag en tant que ay coxeur ay jeune lan ay xale lan ay responsable lan bëgg nañ dara di tàllal autorité yëpp loxo pour ngeen bàyyi leen xel xam ne ñoom i tamit ci askan wi lañu bokk ci mel ni ci mel la ba nga xam ne ñëw nga Pikine ba nga xam ne ñëw nga essencerie tali bu mag ndax fii ñun ñoo ko moom ñun ñooy boroom seen fier ku fi ñëw moom doo ko rëccu waaw kon xam naa ndeysaan seen émission nii la ñuy dundee sëñ As euh, waxtu wi njatt nanu tey sa kàddu gu mucc lan ngay tàggoo askan wi. sama kàddu gu mujj mooy en tout cas daal autorité Pikine bëri nanu xam nañu kan mooy As mbay As Mbaye xam na ñan ñooy autorité Pikine mënu ma lim ñëpp nag mais naa ci cof tuuti rek ku ci mel Jupiter wala euh, euh, président mu Gueye mu Gueye ji de caaray kaw xam na bu baax kan mooy As Mbaye As xam na kan mooy Moudou Gueye waa ju baax la moog Jupiter extra extra ay jara kooku moom tamit wax dëgg fa yàlla nit ku baax la ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di diglu ñoom it ñu ngi leen di diglu daal di euh, sàkku ci ñoom seen ab de présence fii ci tali bu mag fii fi nga xamante ni mooy goxu Ass mbay ak Souleymane waaw ñoom xam nañu bu baax daal ñu ngi leen di déglu daal tey ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di woo daal maanaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo. ok jërëjëf sëñ Ass sëñ Souleymane sa kàddu gu mujj. man daal li may wax rek ci autorité yi mooy fii moom ah ñam xam la. waaw ku fi ñëw moom di nga ñëwaat. ba kon euh, Sénégal yéen a ah, tey. boole ji nag arrêté sëñ Fallou. arrêt bi dama koy tuddee arrêt sëñ Fallou parce que koroog bi nga xamante ni sëñ Fallou dugg si na Pikine tali bu mag di nga intersection bee ngay gis ne fee intersection bi waaw maanaam fee kaay nii ma won la ko comme ça Pikine man koo gis waaw kaay fii il faut nga ñëw parce que parce que waaw gis nga intersection bee fa la sëñ Fallou taxaw jàkkaarloog Pikine jàkkaarloog penku bi daal di ñaan teraanga pikin ñaan teranga pikin teranga ju reuy fi pikin wax deug fa yalla bobu lay dugg fi ci touba pikin tudel ko bopam touba pikin mom seigne fallu ci bopam kon fi are seigne fallu lañ koy wax are seigne fallu la koy tuddé bis mi ko tay fi moy are seigne fallu wa kon dama pikin euh, xam seigne as are seigne fallu mi ngi ni euh, touba pikin are as mbay ak souleyman ak yi mu andal Eh, di ay coxeur yu nekk fii ci Pikine di daan seen doole di ay ndaw yoo xamante ni juddoo Pikine yaroo Pikine màggi Pikine am lu nu bëgg ci biir Pikine eh, yàlla suñu borom moo leen féetale ci wàll bi ñu nekk kon ngeen ànd ko ak seen télévision Pikine TV fii ci station télé bu mag seen émission nii la ñuy dundee doon waxtaan ak yéen ci nen la coxeur yi di dundee en tant que ay nit ci arab bi ak client yi ak jafe-jafe yi ak xat-xat yi asalaamualeykum wa rahmatullah taalaa